vous en appelez vous en appelez à des retrouvailles. non c'est pas des retrouvailles je veux il faut quand même se battre de façon civilisée xeex am na xëccoo am na wax naa la sànq na la démocratie dafa ànd ak confrontation gis naa affaire ni nu mu yëngatoo gis naa yenn affaire ni mu jógee gis naa ñuy commencé euh, xeex bi jógee c'est très bien parce que en certain effectivement les gens vont se dire on va on va pas se laisser c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo doon défendre Khalifa Sall bi waaye bu ñu xëyee naan ko léegi dugubis les gens se disent parce que comme le dit Khalifa saaku dugub boo jël ak saaku ceeb boo jël jigéen bu amoon pancréas wala bu amoon cancer wala bu amoon lii bu ñu faj lañ ko moom lañ ko fajee moi je dis ici aujourd'hui au Sénégal parmi les fonctionnaires là yi fi toog am na ñoo xamante ne fa ñu toog noonu kees d'avance moo tax ñu toog fa c'est Khalifa qui veut pas en je suis je lui dis toujours ne ko benn il faut laisser le le le le rapport de l'IGA là mu génn ci biti. ñu déclassé bu ko génne oui il faut le faire nañ ko génne. et et la deuxième chose je dis un moment ou un autre tu devras donner au Sénégal des indications sur ce qui s'est passé sur ce. ah bu buggee jiite de dina leeral la non non il n'a pas besoin de ça. parce que ça dina dina am loo xam ne un pont du voile boo xam ne dina ko. dina ko non il l'a dit c'est-à-dire que c'est des je connais un grand professeur de médecine là ñi ñëwoon hôpital euh, euh, tribunal ñu ne dañuy ñëw témoigner te ñu duñ leen témoigner c'est des gens yuy faj sur la caisse d'avance ñoo xamante ne seen papa caisse d'avance moo leen évacué en France ñoo xamante ne diw ak diw ak diw ak diw ñoo xamante ne bañ ngeen yóbboo fee ñeneen da ngeen war a fay 8 millions parce que da ngeen war a defal lii c'est la caisse d'avance qui a payé se présenter au tribunal ne a euh, témoin témoigner le juge a dit mënu leen fi témoigner ces gens sont là les gens je comprends très bien que nit ñi xëy suba l'assume parce effectivement il faut l'assumer à un certain moment oui duggul sa kër dundóolu sa njaboot ay ci oui il faut assumer à un certain moment mais il faut aussi se dire quelque chose je le dis hein, aussi bien pour mes partisans moi de de de de Khalifa président que pour ceux qui sont d'autres dans l'opposition nous avons une compétition à faire mais je souhaite que la compétition là reste sur les programmes nañu xeex programme nañu xeex lii nañu xeexante la nañu xeex lii donc ça c'est à rien pour les uns et les autres de. Euh, mais euh, arrêtez de faire les yeux doux à Pastef ils vont pas vous retrouver hein. mais c'est pas le problème de <laughs> non c'est non c'est pas le problème de. waaye waaye waaye Pastef ak ñoom Mimi Touré ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye bu ñu mënee juboo ñëpp mën nañ juboo. oui et, et c'est ça que je dis d'ailleurs c'est-à-dire que en fait le déploiement politique ce n'est pas simplement un déploiement pour euh, la conquête du pouvoir xam nga dafa am yu bëri yoo xam ne nit ñi dañ koy jaawatle. gis nga la capacité à performer en élection bokkul dara ak les les les habiletés à à prester en gouvernance moo tax souvent nit ñi dañuy juum ci ci ay affaires yu bëri gis nga da ngay dégg ay nit di kii xëy suba kaas suba xëy defi gis nga dama lay wax benn affaire gis nga souvent nit ñi lu ñuy bañ bu ñu nekkee si biir opposition boo koy bañ tamit sóoral ne suba di nga dem dans le di nga dem pouvoir gis nga Macky Sall mii tey moo doon wax naa ñu ñu jàppoon parce que dañ ñoon toj ay bis yooyu nañ leen a libéré bu ñu ñëwee moo ëpp lu mu si moo ëpp lu mu si jàpp parce que effectivement ça je me rappelle d'ailleurs le PDS là Abdoulaye Wade aussi dana wax ba ma nekkee jëlee nguur gi y aura plus de lacrymogène au Sénégal en musiba pour policier mooy su amul lacrymogène parce que bu amee lacrymogène bu amul il devient un militaire. Mm. la confrontation directe mais confrontation directe fetal ngay génne en fait lacrymogène. c'est c'est mooy créer la dissuasion exactement et puis mooy ah. créer la distance entre le manifestant et et et force la moo xam da ngay def maintien loolu wala da ngay mais mais tout ça il faut le savoir moo il faut apprendre à à à gouverner. moo gis nga je te dis benn benn affaire gis nga tu me dis tout à l'heure benn euh, benn benn benn réflexion gis tey nañu xëccoo ñun ñëpp ci réseaux sociaux yi nañu xëccoo def lii nañu def performance nañu reyante ci biir euh, euh, réew nañu def lee day gis nga réew mi toll na foo xamante ne lii ñu dund li ñu passé ak euh, si lu ñu jëm waruñu rek nekk di di calculer ay nombre de coups qui donne les coups naa qui n'en donne pas responsabilité bi ñu am ñun ñëpp en tant que citoyen bu ñuy sànni suñu carte c'est de, de faire un vote intelligent de faire un vote réfléchi on ne peut pas se permettre d'aventure présentement fi ñu toll